à part yeneen yi des muy bu mel ni euh, bi ñu jox euh, maître Ousmane Diagne nga xam ne gisoon nañ ko même euh, par rapport ak état dossier yi nga xam ne moo mujjee dem yépp cour suprême taxawaay bi nga xam ne moom la ci beneen bi mooy un inspecteur bu nekk impôt domaine di liggéey ci budget après ñu jox ko finance muy Cheikh Diba ñi ngi doon wax waxu impôt yeeg ñoom seen finalement kon xëy na entreprise yeeg yooyu mën nañoo taxaw di xaar wàllum rëdd fiscalité yeeg yooyu noonu côté Ousmane Diagne aussi la justice est-ce que euh, par rapport ak li ñu ko nommé lan lañ mën a xaar ci moom est-ce que <coughs> du am effet contraire aussi mooy euh, li xewoon reddition des comptes yeeg yooyu noonu ñu war a def yëpp yëpp yëpp taxul moom ñu teg ko fa euh, malgré que gis nañ liggéey bi mu doon liggéey ci justice quand même. waaw xam nga di baa ñu bëri xamuñu ko mais man xam naa Cheikh Diba. c'est xam naa Cheikh Diba xam sa probité xam saa compétence xam sa loyauté foofu laa ci mën a yem. te xam nga ne c'est un directeur directeur de la programmation budgétaire gis nga député yu nekk ci assemblée nationale pouvoir comme opposition laaj leen bu ñu nekkee session budgétaire kan mooy Cheikh Diba parce qu'on voit le ministre des finances et du budget mais administration bi nekk derrière la direction générale du budget ak direction yi nekk ci biir muy direction sold wala muy direction euh, du budget direction de la programmation budgétaire programmation budgétaire parce que euh, le signal a été donné mardi ouais. à travers la conservation du ministre secrétaire général de la présidence li am solo mooy sénégalais yi nga xam ne seen loxo set na seen loxo xarañ na te ñoom bëgg nañu liggéeyal Sénégal mm-hmm. dañu war a souffrir parce que musuñu bokk Pastef te ñu te mu leer nañu xam nañ seen secteur d'activité te def nañ fi ay parcours yoo xamante ne set na wecc kenn mënu leen reprocher dara mais ñooñu dañu war a servir Sénégal bu fekkee ministère de la justice li am solo mooy ki ñu ta tabb xam nañ markam mooy un magistrat de parquet nga xam ne amoo indépendance hmm. sur le plan institutionnel magistrat de parquet da nga dépendre ci ministre de la justice mais ba muy nekk procureur de la république ba muy nekk procureur général ba muy nekk avocat général près la cour suprême ñëpp nawee nañ ko son indépendance boo xamante ne une indépendance personnelle def liggéeyam kon suñu gis-gis mooy dañ ko placer sous le sceau de l'indépendance de la justice li des nag du profil bi kase les réformes judiciaires parce que dégg nga président de la République keroog son adresse à la nation du 3 avril muy wax ne ci concertation sectorielle inclusive yi li muy bokk na si li muy njëkk def mooy les assises de la justice les assises de la justice regroupe toutes les professions du secteur je pense que c'est un moment important pour ñu évaluer ñu def le bilan l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la justice ñu fixer le cap avec les acteurs et les parties prenantes parce que régime bi fi weesu secteur bi ñu gën a souillé mooy le secteur de la justice utiliser nañu ko ba image yàqu ci daru sénégalais yi utiliser nañu ko ba acteurs yi fa nekk nekkatuñu ñoon à l'aise ci jàkkaarloog sénégalais yi c'est le moment de redorer le blason comme li ko président de la république waxee kay keroog pour euh, ñu am justice boo xamante ne dina proche des sénégalais dina tëddee ñaaxaanaay mais dina garantir les droits et les libertés te loolu am na lu ñu ci bind suñu programme mooy l'élection du juge de des libertés et de la détention aussi l'élargissement de la carte carcérale le fait de miser sur euh, le les, les les les méthodes d'aménagement des pen notamment les méthodes alternatives à la détention mooy yaatal bracelet électronique mais bu ñu condamné nit ki lu mel ni le travail au bénéfice de la société ñu lay tëj fenn ngay lekk di naan mm. ak nga mën a liggéeyal Sénégal soo facilité sa insertion ñaar yooyu ba moo gën donc réforme yooyu moom nañu bëgg engagé engager dans les jours à à venir. bon maître dañu daan dégg euh, moom Ousmane Sonko mu daan wax naan il faut ñu am changement systémique boo xam ne nii euh, daanaka booy wax système boobu ak léegi 60 ans bu ñu jëlee indépendance ak léegi euh, tey ñu taxawal gouvernement moom muy le PM. naka nga déggee changement boobu ak bu ñu taxawalee li nga gis ci gouvernement bi yow ban jàngat nga ci ak ban genre changement de système lay doon. merci beaucoup parce que loolu moo doon sama troisième partie intervention mooy kii incarne gouvernement bi parce que le premier ministre le président c'est le chef de l'État le premier ministre mooy chefu gouvernement bi. te globalement ñaari rôle la am. coordonner l'action gouvernementale. et conduire la le suivi de l'action gouvernementale. coordination bi mooy. bu ñu waree def ay conseil interministériel ci loo xam ne dañ koy engagé ci réforme wala ay mesures te mu laal ministère yu bëri les conseil ministériels mun na ko présider mooy fexe kon ba ñu méngale parce que secteurs yi dañoo dañoo dafa am imbrication bu am mais faire le suivi de l'action gouvernementale c'est extrêmement important mooy li président de la république orienté ci politique de la nation ministre yi ñu ko dénk ñu fexe ba ñu def ko boo amee premier boo xam ne dafa am autorité sur les ministres parce que la c'est c'est un chef de parti c'est extrêmement important ñaareel bi mooy dafa am benn charisme naturel bu ko yàlla def boo xam ne fu mu taxaw bu imposer fixer un cap soit tu le suis bu fekkee parce que li muy fixe lu baax la pour Sénégal wala sénégalais yi xam ne intérêt Sénégal laa jug donc loolu moom prééminence am rek dafa am boo benn rôle bu muy jouer loolu mooy leadership groupe bii nii ngeen nekk du n'importe qui moo koy jiite rek muy am même culture d'entreprise wala muy am même résultat yi wala muy am même motivation personnelle yi le président Ousmane Sonko en tant que premier ministre dafa am dafa am loolu am solo dafa am lu muy imprimer comme marque dans le gouvernement. jàpp ne dina impulser. oui il va l'impulser le Sénégal a besoin de son leadership le Sénégal a besoin de son leadership pour impulser le développement parce que lan moo ko fal moom une énergie populaire qui disponible qui est là. cette énergie populaire kan moo mën a tirer les ficelles bu ñu waroon dem vacances ñëw ñu ne dañuy def ay vacances patriotiques ñu ne dañu soxla jeunes yëpp ñëw bay ji Ousmane Sonko en tant que chef de gouvernement sur impul sous l'impulsion du président de la République Bassirou Diomaye Faye bu ñu impulsé loolu da ngay gis ne dafay am benn dynamique bu muy créer ak benn motivation naturelle parce que yàlla moo leen ko defal mais yàlla defal na ko aussi euh, le chef du gouvernement <coughs> loolu mooy nit des mooy tey fixé na déjà les priorités et ce sont cinq priorités première priorité mooy jeunesse éducation formation entrepreneuriat ak emploi mooy première priorité deuxième priorité mooy lutte contre la vie chère et fexe ba améliorer euh, pouvoir d'achat wu sénégalais yi te loolu c'est des mesures urgentes que les sénégalais demandent troisième bi mooy lu jëm ci justice promotion des droits humains bonne gouvernance ak démocratie électorale nan la ñuy fexee ba ba optimiser ko ba améliorer ko te foofu am na ñetti mesures yoo xam président de la République ko déjà déjà première bi mooy li jëm ci ñiy voté ñu fexe ba automatiser l'inscription sur les fichiers électoraux <coughs> benn président de la du fi nekk ti ñi ne la yow mun nga def révision exceptionnelle nga mën a fixer durée bi ngay ñëw comme li président Macky Sall defoon 2023 ne un mois nga may sénégalais pour ñu bindu. ba dernier jour sénégalais yi di fees ci commission administrative d'inscription itam mënuñoo bindu rapport d'audit du fichier électoral bu union européenne bu 2022 def ne jeunes yi am 19 ans ba 20 ans ñi ci inscrit ci liste fichier électoral bi 9 pour cent xam nga fichier boobu fidelul donc loolu bu ñu nee dañuy automatiser l' inscription sur les fichiers électoraux ku am 18 ans nga dem ins ñu inscrire la directement tout le temps nag administration bi ko yor muy daaf di def radiation d'office pour ñi nga xam ne décédé nañ di def radiation ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo perdre seen droit civil et politique mais loolu c'est une loolu c'est une avancée majeure beneen bi mooy rationaliser les partis politiques c'est un vrai problème au Sénégal mais il faut le fair avec les acteurs concernés les partis politiques et la société civile pour ñu am parti politique doo xam ne leen constitution bi may mooy participer à à l'éducation populaire et citoyenne ñu jëm vers ce troisième bi mooy Sénat bi nga xam ne mooy superviser élection mu quitter rôle superviseur nekk rôle organisateur moo tax ñuy jugee ci commission électorale nationale autonome jëm ci commission électorale national indépendante loolu maanaam dangeen bëgg a génne organisation élection yi ci ministère de l'intérieur oui parce que champ d'application bi nag fan lay yem étendue bi xaw ma ko mm. mais ce qui est clair mooy élection acteur yi ko wër xam nga ne cour yeeg tribunaux yi ñooy àtte contentieux yi ñooy proclamer résultat définitif yi. ñi nga xam ne ñooy observateurs internationaux et nationaux yi dañuy ñëw di observer le superviseur mooy l' arbitre c' est la Sénat. kii organiser mooy la administration. Mm. ay DGE ay DAF et cetera ak mais aussi l' administration territoriale. boo fexee ba Sénat boobu noonu parce que waxoon nañ ne Sénat am na rôle supervisé day teew dans toutes les étapes du processus. te am na capacité pour def injonction autorité administrative yi am pouvoir de sanction am pouvoir de substitution mais gis nañ phénomène DGE Sénat donc réew mi war na mën a évoluer dans ce dans domaine la pour ñu am une commission électorale boo xamante ne élection xam nga lan mooy nekk débat bi est-ce que diw day bokk wala diw du bokk parrainage est-ce que day tere kii mu bokk wala du tere kii bokk est-ce que ñun inscrire nañ ci liste yi wala waa waa wala est-ce que fichier bi fiable na wala fiableul dañuy dépasser débat yooyu. indépendant kon kon boobaa débat bi ci lan lay nekk. des débats sur les politiques de développement. Ah. muy élection locale muy élection législative muy élection présidentielle mbirum projet de société lay doon mbirum programme. d'accord donc réforme boobu. Hmm. en réalité impact boobu lay am donc dina amal njëriñ démocratie Sénégal. mais dina amal njëriñ conscience collective bu sénégalais. léegi indépendante cela s'entend que donc euh, par exemple ki doon président Sénat du président de la moo koy nommé. mun nañ jëm vers ça. parce que a s'il y a ça a problème parce gis nga avec Sénat Sénat bi ñu génne nii. Mhm. Euh, gis nga ngeen bi ñu fiy ñëwee nii dañuy dañuy substitué wu à la DGE. Mhm. pour pour pour pour pour euh, remettre Ousmane Sonko dans ses droits. Mhm. le président dafa bind décret rek. daal di leen di daal di leen di dégommer. ñoom ñu jaar mais loolu c'était illégal. parce que booy nomee membre Sénat bi da nga war a nommé d'abord ñoo xam ne euh, politiquement kenn xamul leen corrélation ñaareel bi dafa war a am ñoo ñoo war a consulter. organisme yu yu mel ni ordre professionnel yi lu mel ni universitaires yi loolu la loi bi wax ñetteel bi booy renouvellement bi dafa war a nekk par tiers des membres mm-hmm. nga xam doo def renouvellement général mm-hmm. kon décret boobu c'était un décret illégal loolu mooy dëgg mais qu'importe donc loolu loolu munuñ ci basé wu di wax kan lan mooy seeni modalité de nomination mooy li may wax encore une fois mm-hmm. champ d'application bi champ d'application maanaam étendu wu jóge transition de l'autonomie à l'indépendance acteurs yi ñooy toog autour d'une table ñu waxtaanee ko muy pouvoir muy opposition muy société civile luñ ci d'accord ñu def loolu. d'accord Mame Birame. Euh, waaw xam nga man euh, sànq maa ngi doon euh, répondre un peu par rapport ak forme bi ak nu ma gisee ne noonu la ñu resserrer la taille du.